Euh, noo ngi lay ziyaare di la nuyu soxna astu moom soxna Bali mu soxna May kàddu yi nag moom du bari kàddu yi cant rekk lay doon ak sàkku ñaan ci ñi nga xam ne ñoom laa àndal te nu yàgg ànd ak soxna May ba ci soxna baali ba ci yow mi ñuy ñaan mu yàgg lool lool lool ci barkeb sëriñ bi maa ngi ànd ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi muy sëriñ Ibra ak sëriñ allaaju Joxaane mi nga xam ne fii mooy buntam ci sëñ Touba ak sëriñ Xaadim Njaay ak sëriñ Maam Cheikh Joxaane ak sëriñ Modou Faye ak sëriñ Ablaye Sall ñu ñëw teewal si fi mboolem waa daayira Touba Sandaga nañ ko daa defee tey dañoo ñëw rek ngir siyaare si ngir waajal bis bu tedd boo bii di guddi laylatul xadar ñoom it ni ma la ko daa waxee rek ñoom day saa bu weer wi teroo ba kere ñuy jàll laylatul xadar amul benn bis boo xam ne dinañ ko noppalu wala ñu toog ko loola it xam li ñu soxna may defal ci liggéey bii nga xam ne ku la ci boole dimbali na la loolee soxna may defoon it saabu bu ne njabootam di ko feddali muy sëriñ Modou muy soxna Baali ba ci yow mi ak seex abdu lu ngeen di def rek daayira Sandaga ngeen cee njëkk tudd kon loolu xam nañ ko xam nañu it li ngeen ñu bëggal ndax képp ku la liggéeyloo ci sëñ Touba jariñ na la rawatina nag bis bu tedd bii nga xam ne yemul ak benn bés kon kun ciy liggéeyloo war ngaa sant yàlla sant ña lay liggéeyloo nun daal dañuy ñaan rek nga gën a ñaanal mbooloom daayira Touba Sandaga ak ñiñ ko àndal muy waa daayira Géejawaay ak mbooleem daayira yi nga xam ne ñooy taxawu laylatul xaddar yëpp ba kenn ku ne loo ci yéene rek yàlla defal la kàttan koo ko defee ñuy ñaanit nga yàgg fi lool ba yéene ji soxna May amoon ko soxna Baali am ko nga mottuli lépp ci barkeb sëriñ bi jërëjëf kàddu sant sëñ Tuubaa ndax seen daayira bi day mën nañu wax na seenu wane ba seenu mag sëñ Tuubaa rek la ndax ba ngeen di takk seen laxasaay yi day di topp ginnaaw soxna may mën a di daw ci leen ko fatal dañu ci yéen kenn koo xam ne kawar bu weex nekkoon nañ sa bopp bi ngeen nekk sànn la doon ay tëb yàlla boole leen ak soxna Ndeye mosu ñu ko fu mu ko defee rek fekk nañ ko bu dee ci daal waxaat bu dee ci Tuubaa ñu xaas leen fii seen xaasi bopp yoo xam ne seen liggéey bi yëpp ci liggéey seen Tuubaa la ko ci laylatul xadar yéen seen gàtt bi mooy gàttub seen te loolu cër la leen yàlla jox ba mu ko waxee nag. ba bisu tey ci ngeen xamee ne sëñ Tuubaa kenn du ko jox lu baax lu gën lañ koy jox ngeen fas yéene waxtu wu ne lu gën ngeen di wut suñu borom di leen ci fekk ak ndimbalam du ngeen yem ci loolu bu ngeen dikkee liggéey li ci gën a sell gën cee màgg muy njàngum xasida mi da leen koy féetale ak nag taxawaay ci biir kër gi loolee soxna su nee na amu ci lenn loo xam ne lu muy sos la xanaa lu muy jéem a yokk kay wala boog lu muy sàmm ba du ruux waaye xam na ne yéen alali sëñ Tuubaa ngeen yu yàlla xaasal soxna Maymuna soxna Bali it xamoon seen taxawaay yooyu ngeen di ko ànd ak moom ba bisu tey jii soxna su nee na seen jëf jii mën na ko dugal ci li ngeen daan jëfal soxna May su boobaa it du ngeen am kersa da ngeen xam ne li sëñ Tuubaa ne awma tànk ginnaaw tànk kanam rek laa am waaye sëñ Tuubaa daa yomba liggéeyam ndax day wax ne saa yoo amee pas-pasu liggéeyal ma bi nga nee bëri maa lay jiitu ci sa soxla yombalal la ko bu ne la nekk jéego yu sori ma xëccal la ko ba jege te booy dem maag yow dañuy ànd dara du la du la du la sonal soo demee mën a ko yëkk teg sa loxo coono bépp maa koy toggoo ba nag bàyyee la ndam li su ko defee nga defee na doon nga ci dara ci doonoo ci dara nee na it ab murit li tax may xam ba xam li ma ko digal def na ko wala defu mooy saa yu ma ko digalee boole naa ca njariñ su jëfee ndigal la njariñ la day dëkk moom bu deful ndigal la njariñ la day del si na ma man kat kan ma boolee noonu defuma loolu mooy tax ma xam ne kon defuma yéen nag am ngeen xaas lool ndax ba leen soxna may digalee ba fi mu ne digalaatu leen lenn ndigal la rek gen di sàmm te bis bu yàlla sàkk soxna saa ngi tege ci yéen bëtam ndax kat sañ Tuubaa nee na su ma su ma leen di liggéeyloo sëñ Saali boo ko waxoon dongam yii ne leen su fekkee ne jàpp ngeen ne su ma jàkkaarloo wut ak yéen du ma xam ne lañ seen biir la ma ci Sëriñ Tuubaa it noonu na woon murit yi su fekkee ne gis leen doo ngay tax ma faj seen aajo kon mëntuma li ma doon ci yéen mel nu moom mooy koo xam ne murit ba nekk Allemagne benn ba nekk Arabie Saoudia ka nekk Amérique ki nekk Murtani ka nekk Tamba ak ki nekk Touba ak ka nekk ca bàmmeel ñoom ñëpp jenn jëmm ji la ñuy tàllal loxo te ñoom ñëpp lay faj seen aajo kon kooku suñu borom ko dimbale ci li mu waxoon na ko man la ka ni dunia wa uxra sabadu yàllaa ma moom loolu àdduna moom loo ma alaaxira zimaamu war a xasri ladallahi fi yadi nosul mbindeef yi yàlla teg na ko sama loxo li ma bëgg rek kay am loole nag bu leen ci yàlla xaasalee ngeen dem ci am caatam nga xam ne moo ne mu mubaarakul ibtidaa yi waaye nag maymuunal intihaa yi ah, maymuunal intihaa yi jooju nag moo ñu fi dajale ñun ñii ñëpp yàlla nañ ko am yàlla nañ ko am soo su ne na sedd na waaye nag mi ngi yéen ñi nga xam ni li sëñ Tuubaa ñaan yéen a ngi ci wax waqdi si allasina daamu fi xidmati wa hablahum maaramu ki nga xam ne ak yëngutoon ak dalam lépp mooy li ma liggéeyee yow yàlla na nga faj aajoom ku aajoom faju nag lu mu ñaan yàlla def kon ñu ngi sàkku ci yéen ko yàlla àggale liggéeyam te musal ko ci ndog yépp mooy sa nijaayam sëriñ Mamadou Mahfous ak sëriñ Safatou si nee na xolam sedd na ñu ngi ñaan yàlla mu faj seeni aajo yàlla bu ngeen dajee teg xol bu tàng mu bu mu am ci yéen bu mu am ci seen ci barke soxna yasar li muyasir asiri maqdaru li bila masiri yasar li muyasir asiri maqdaru li bila masiri ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا ما توجه المكاري ليا باق خبا بذكره وهو ليا رديت وعني رادي بلا مكاري ولا أمرادي رد لخير جهتي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لخير جهتي لعين يسوق لخيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق عادل قاد الهام قد بيالي ما لون